asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu maa ngi nuyu the whole maa ngi nuyu his excellence Mr président Barrow ak cabinet am bi yëpp maa ngi ko nuyu tamit waati ak ma famille am bi yëpp first nitu first lady ñaari jabaram yëpp ak doomam yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu the whole um, um, um, cabinet am di nuyu the whole intermilitary yëpp di nuyu. political leaders yi ak seen supporters and sorien Gambia outside Gambia di nuyu jigéen ñi Gambie yëpp maa ngi leen di nuyu leen di ñaanal ñu nekk si hospital yal na yàlla di ñaanal ñu nekk président di ñaanal ñu di leen gërëm di leen na yàlla may leen di ñaanal special need people maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla yéen tam di ñaanal the whole entire di whole entire imams yëpp in Gambia from Katundu ak pastors ak priest yëpp di leen nuyu di nuyu suma closest ally Diamond known as Boubacar Fofo ak yaayam di nuyu di nuyu suma lawyers yëpp maa ngi leen di Labat yëpp maa ngi leen di gërëm di leen nuyu yëpp di nuyu judges yëpp di nuyu chief justice yëpp maa ngi leen di nuyu chief justice maa ngi laa nuyu di la gërëm yaa judges yëpp di nuyu the whole entire Gambia from Cartoon to Wona maa ngi nuyu Gambia Action Party seen leader bi mooy Imam Musa Hussaini Ali Bathily ak suma deputy secretary general Omar Bi ak and the rest of the executive asalaamualeykum wa rahmatullah Mr Touré 66 eh, people ñu gaañu gis nga ñu responsible ñu ñu xam ne they are responsible this Mr. President Baremangla or short meeting, short voice note, arrest all of them, bring a tax force, ñu def proper feasibility waaye li war a dugg foofu xam nga medicine soo ko oodee balaa ñu ko oodee dañ dee investigate toro medication is confirmed and sealed baax na ñu import ko from India import from Germany import from the Europeans with Asia mu ñëw Gambia so naka la ñoo dem lii it means dañ dem jënd poison leen jënda it's called a poison medicine So you responsible. Yep, silly. No compromise, Mr. President Barrow. So compromise with this. We will never forgive you. You have no responsibility. Bring a tax force. They investigate thoroughly, ASAP, within 72 hours. Call the tax force. You investigate immediately. You responsible. Chichwake Minister Sada Faboka, Deputy Yep Pamisi, they go to jail. Chanjambure, mandatory sentence for five years. But after you new Because they are murderers. You defense the fii rek laa am Mr Touré maa ngi nuyu eh, journaliste yëpp maa ngi leen di gërëm di leen ziare dama mer am out of the country dama nekk out of the country naa ñëw fan yi lii daf ma naari trop naka la whole entire government ñu ministry of health yaa responsible of this nga order medicine mu ñëw medicine boobu dañ ko war a investigate anam so bala ngaa jënd any kind of medicine it must be investigated thoroughly confirm and see that medicine bi dafa baa ñu indi ko suñu dëkk bi So new new responsibility. They are criminals. They are corrupted, and they must be prosecuted. No compromise. The president so compromisingly, we will never forgive you, and you will be you accountable in dunya and akhirah. jógal nga ko sa task force si ñu def immediately immediately immediately within 72 hours they bring a solution ñu bokk si ñi they will be arrested prosecuted and sentenced to to life imprisonment 66 people it's not especially now the future leaders am na ñu nga xam ne dañ sa dam they, they could be presidents they could be good leaders Mr. President Barrow I'm urging you right now na ku tey ëllëg task force jóg right now ku involved in this <coughs> political leaders yi ñun tam ñu jok all the political opposition leaders jóg leen We make sure we join to the new hand. We join. This is a national thing. You join with the president. You find out who are responsible. Whoever is, even if it's a family member, they must be arrested, prosecuted, and sent to jail for life. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.